gan gi Abdou Sané coordonnateur Pastef Ziguinchor di itam environnementaliste ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am mbégte dalal ci réew Rewmi FM euh, comme ni ñu koy amee saa su nekk alors euh, tàmbali waxtaan wi ak seen euh, leader Ousmane Sonko démb mu demoon ca mairie Padois bi nga xam ni kenn ci seen ñooñ moo ko jiite wante ay gaz lacrymogène la ñu mujjee joor ci cortège bi ngir tasaare mbooloo mi ko toppoon ca wet ga itam ñuy nemmeeku ñuy jàpp ñu bari ñu bokk ci yéen di seen ay militant lii lépp di dal ci seen kaw naka ngeen ko jàngate. voilà Fatou donc jàngat bi mooy jàngat boo xam ne moom la Sénégalais yëpp def xam nga bés yu passé Ousmane en tant que maire de Ziguinchor jóge na këram dem seeti Jamil Sané nekk maire bu Parcelles Assainies hmm. donc benn publicité sax am ko ñun miy dëkk Ziguinchor yéeguñu sax ni loolu day am mais mbooloo bu takku takku takku moo gën pour teet ko ci Parcelles de façon spontanée Ousmane ko jógee këram dem Colobane comme tout Sénégalais dem pour faj fa ay soxlam d'un point de vue commercial mbooloo bu takku takku génn foofu ba ñu ak accueil bu kees bi nga xam ne moom la gars yi woon pour Macky Sall démb mu dem pour seeti moromam maire boo xam ne mi ngi tudd na Maymouna Dieye nag maire u Padoua euh, ay nit bu ñu yéegi nit mi ngi côté boobu ay nit yu bëri génn loolu est-ce que loolu délit la boo siiwee dafa fekk li nga liggéey moo baax nit ñuy sopp la sa jikko moo baax Macky Sall tey bu noonu ay yuuxu rek ko ci fekk parce que jaar na Colobane ay nit yuuxu ko léegi moom lu mu amul boobu la bëgg tere Ousmane te moom mu nu ko tere parce que Ousmane il n'est pas demandeur taxawul pour nan ñëw leen ñëw leen maa ngi nii non non nit ñi ñoo yàkkamti pour gis ko xam naa ci dara fii suñu maire yi bu ñu doon topp demande audience Ousmane dina recevoir plus de mille personnes par jour fii ku nekk bëgg na ko gis parce que Lalla dafa am lu ñu gis ci moom dafa am lu ñu yaakaar bu baax ci moom parce que Lalla bi Sénégal commencé ba léegi depuis indépendance ba léegi taxawaay bu mu am mus ñu ko gis ci benn politicien loolu moo indi Sénégalais yépp góor ak ndaw jigéen ak mag ñëpp jël seen yaakaar teg ko ci kaw yaakaar boobu moo indi ku nekk yàqamti am meeting walla visite bu Ousmane Sonko waa Mbacké ñëw ñu jox ko rendez jour boo xam ne mooy tey jour bu mag mu nekk un jour de vendredi ñoo ne pour mu ñëw foofu def meeting am ñu dara lu ñuy def lu dul tere meeting te ci tere meeting bi gàcce bu rëy la teg tey ay collègues am préfet parce que tegu ko ci yoon mais daf ko teg parce que simplement moom moo xamul ñàkk xam ci ñàkk xam la tey Sénégal weesu nañu tey pour ñuy tal ay nit ñu nekk préfet alors que amuñu niveau boobu pour nekk lu loolu baaxul dafay indi problème bu rëy. parce que loi bu mu évoqué mooy loi quatre kii article bu mu évoqué mooy article quatre vingt six soixante quatorze bu code pénal bu passé na depuis mille neuf cent soixante dix huit c' à dire que wóor ma sax yow heure boobu juddoo nga. Mhm. donc moom ci loolu la nekk. loi bu bees moo am boo xam ne mooy lu ñuy wax loi soixante dix huit zéro deux du vingt neuf juin mille mhm. boobu moo léegi même benn nit mën def demande. Mhm. te même moom loi bu mu doon évoqué noonu amul fenn problème bi mooy lan. lu tubaab di wax népotisme mooy lan nga jël koo xam ne xamul da koy teg ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo xam donc préfet boobu de sax am na ñu bëri dañu ne même ba mu nekkee élève wala étudiant yooyu yëpp demeewul noonu donc moom la ñu jël teg ko ci poste préfet n'est pas préfet qui veut préfet yu bëri ci ay royukaay la ñu mais kii defam am problème niveau léegi problème niveau boobu moo nar a indi tey maasi bu problème bu rëy fii ci ci ci Mbacké war nañ ko seet war war nañ ko seetaat donc loolu moo indi ñun ñu saisir cour suprême pour wane carrément ni am na abus de pouvoir waaye dem bu programme bu Ousmane Sonko moom day continuer parce que Ousmane Sonko nekkul affaire mitin tout court mais dafa fekk digganteem ak nit ñu baax ñi ñu nekk ay sëriñ dafa am le khalife général des Baye Fall nga xam ne am na rendez-vous ak moom. moo waral tey vendredi dafay dem Mbacké hmm. pour def foofu d'abord prière bu vendredi bi et en temps. rencontré xalif général bu bay Fall. Hmm. loolu moom programme moom la. Hmm, waaye nee nañu meeting ba far force dafay am ndax loola ngeen décidé yéen waa PASTEF. non nekkul affaire waa ñun waa PASTEF xam nga man maa ngi nekk Ziguinchor te ma nekk hmm. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo soxla sax Ousmane Sonko mooy waa Mbacké. léegi waa Mbacké ñoom ñoo xam ban suite la ñuy joxe affaire bi te wóor na ma ni ñoom taxawaay bu ñu taxaw mooy taxawaay boo xam ne moo normal mooy lan na meeting bi am par force mais. man mii dëkk Ziguinchor du man maay ne waa Mbacké ni ak ni ngeen di jar waa Mbacké xam nañu lu ñu bëgg. Hmm. te Ousmane ñëpp a ko topp waa Mbacké raw donc waa Mbacké lépp lu ñu jàpp dam leen ci respecté. Hmm. bépp décision bu ñu jël dam leen ci encouragé man. Hmm. voilà d'accord alors gis nañu ni euh, ni ma ko waxee sànq ñu bari ci yéen ñu ngi leen di jàpp seen ay militants fukk ak juróom tey ji sax la ñu leen di àtte ndax dañoo demoon keroog cité kër góor gi ba Ousmane Sonko waree dem euh, wuy ji euh, leneen itam muy mbiram force spéciale ñu bari ci yéen ñu teg leen ci loxo jàppati nañ ci keroog barki ba lii lépp di dal ci seen kaw ñu bari itam ñu dégg leen ñu ne danañu résister récréation bi moom dafay jeex. ndaxam dañoo war a xaar yeneen xeetu manifestation ak yeneen xeetu fippu yuy jóge ci yéen waa PASTEF. noo xam nga ku xam luy PASTEF war nga xam sunu taxawaay nit bu la war ni yow am nga doole doo dute sa bopp yow tey sa diggante ak sa doom wóor na ni ëpp nga ko doole doo yàqamti ci affaire am da ngay garder loo xam ne moom lu tubaab di wax sérénité mais bu dee da ngay dute trop sa bopp wóoluloo sa bopp. da ngay ñàkk sérénité. lu jóg nga tëb ci borom doole borom doole musul yàkkamti ci li muy def parce que dafa xam ni dooleem dafa am puissance boo xam ne jour bu mu koy déclenché. Hmm. du xam ba fan la koy yóbbu loolu moo indi borom doole musul yàkkamti. Hmm. yow askan bi di ñëw tout court. boo jëlee askan bi jógee par Kër Massar boo jëlee askan bi jóge Parcelles Assainies bi jógee kolobal ak Patte d'Oie Demba ak bi nga xam ne tey Mbacké parce que même meeting bu am le Ousmane Sonko buy traversé Mbacké simplement pour dem ci xalif général bay Fall bul xam ñaata nit ñooy taxaw. Hmm. noo am mbooloo boobu ba pare nga ñàkk solution pour régler sa problème. Hmm. mais dafa fekk yaa ngi mesurer loo xam ne bëgg nga ko régler te bëgg nga limiter les dégâts mooy le sens de la responsabilité. Hmm. ci diggante boobu la ñu nekk mais bu fekkente ne léegi dem nañu ba ñu sës ba ñun ñu déclencher suñu doole. yow mi yaa may oowaat pour dema ah mbaa doole bi ëppul bi yoon. Hmm. ma la lii laa doon daw moo tax ñu garder woon suñu sérénité mais léegi heure jot na pour mettre un point un trait ci lu ñuy def nii yëpp. kon ma tuuti na trop hmm. lay si suñu doole. Hmm. attanu suñu doole. attanu suñu doole parce que Macky Sall ñenn ñoo ko jàppale du population bi quelques gendarmes officiers quelques euh, commissaires zélés. ak préfet genre préfet bu Diourbel yu mel noonu ak préfet peut-être bu Saint-Louis nekkoon fii Dakar jeex na mais l'essentiel des forces de l'ordre boo demee biir gendarmerie yi éléments yi nii li police militaires yi ñëw ñëpp dañ ko jëppi hmm, foo teg loolu foofu la problème bi nekk foo teg loolu ñooñu ñooñu duñu wax di non duñu wax mais am na nu ñuy waxee hmm. xam nga wax mooy lan ñu lay dëgg mais wax nekku nekkul simplement lame taxawaay xool bi geste yëpp c'est ça. te bu ñooñu ñoo leen di jàpp di ñi ngay wax noonu ñoo leen di jàpp di. dañ leen di jàpp loo. Ah. dañ leen di jàpp loo parce que ñooñu boo jëlee ku mel ni man. Hmm. maa ngi ci biir marché maa ngi ci stade maa ngi ci transport en commun maa ngi dox samay soxla maa ngi waxtaan ak kenn ku nekk am naa donc moyen pour ma mun a xam taxawaay kenn ku nekk xalaat kenn ku nekk ci sutura loolu moo indi ma ne la force de l'ordre yi. si suuf nii ñoom ñëpp gëmuñu Macky Sall dañu xam carrément ni Macky Sall nekkul ci yoon. Hmm. ñoom la affaire bi gën a sonal parce que dañu xam ni population yi ñuy def répression seen i rakk la ñu seen i sœur la ñu seen i jabar la ñu seen i et cetera et cetera. Hmm. seen i mbokk la ñu. Hmm. donc suñu diggante ak ñoom pro dafa tax léegi seen ci kaw a kaw par exemple comme ay ñoom général Moussa Fall nga defe ne gëm a yàlla tax na ba ñu xalaat ni bu ñu defee lu Macky Sall def du ñu am dara du ñu tekki dara ñoom ñoo ciy accroché wu mais ñi baax yëpp. waxuñu dañoo noppi. Hmm. mais heure dina jot Macky Sall dina wéet. donc man li ma xalaat ci homme politique da ngay yaakaar ci sax askan bi mais doo yaakaar ci simplement lu ñuy wax la puissance publique. Hmm. mooy doole boo xam ne état moo ko moom. ci ma profité ci loolu. Hmm. pour encore une fois may chance ñi nga xam ne ñoom ñooy def preuve de zèle pour ne leen il est temps ñu arrêté loolu. kenn ku nekk war nga xam sa pouvoir fu mu yem. bu ñu lay defloo am na foo xam ne waroo nangu ñu lay defloo loo xam ne waroo ko def. sinon à l'heure du jugement dinañ la juger te amul wax way dañ ma def loo dañ ma def loo yaa ko tey. Hmm. alerte boobu laa bëgg def. d'accord alors environnementaliste bi nga doon laay waxal bi la yoon ndax euh, gis nañu réew mi moom lu ca bari ñiy bàyyi xel dëgg nee nañu foo tourné danger ma nga fa ak catastrophe bu mun a kalaate saa su ne barki démb ndar ab euh, cuve moo fa explosé ñaari nit ñàkk ci seen bakkan yeneen ak yeneen i danger aussi ñuy xëy di ko gis lan moo ci wareefu kilifa yeeg askan wi. non loolu wax nañu ko ba sonn yow yaa ngi wax dem mais ma ne la 2002 Sonacos boobu nekk Dakar. Hmm. ñaata nit ñoo fi de du dafa amoon ammoniac bu explosé. Hmm. ñu xalaat ni léegi comme loolu am na dootul am. Hmm. ci diggante boobu ñaata accident ñoo am ñaata yoon ngay dégg ay essenceries moo explosé ay cuivre et cetera tout et tout ñaata yoon lañu la wax ni côté Diamaguène Sicap Mbao. nit ñi dañu tabax ci kaw ay pipelines. boo jëlee HLM côté marché boobu noonu yëpp tout caniveau kan canaux yu yi ñaata nit ñoo tabax seen kër ci kaw yooyu. Mm-hmm. courant bi jël autoroute à péage booy dem dak booy circuler nii nga xool à gauche à droite yaa ngi gis ay kër yoo xam ne câble courant yi ñu ngi nii di passé ay kër ñaata yoon nga dégg courant dafa rey nit parce que lan la mm-hmm. dafa coupé wala dafa doon ki yaa ngi dégg bés bu nekk ci nawet ñu lay naan la foudre a tué mm-hmm. ñaata nit or li ngay gis yépp am na fu ñu ko tëral ba nga xam ne bu fekkente ne bëgg nga sa askan bu fekkente ne am nga jot pour protéger say askan am na loo xam ne waru leen dal hmm. instrument boobu li ñuy wax cadre de Sendai moom la Sénégal signé parce que dafa nekk jumtukaay boo xam ne bu dee li nga signé ci biir respecté nga ko wax ma jéey du am mais dina wàññeeku bu baax hmm. mais tey Macky Sall loolu yépp boole ci Macky Sall faalewul sécurité population bi xam nga léegi moom lan la faale. Hmm. jël lépp lu mu am ci policier. ñi ñu war a fanaan kër Ousmane Sonko ñële ñu war a xool Ousmane Sonko fan la jëm ñu koy gunge. point li ci des yëpp yoonum newu ci. Hmm. démb rek six morts ci circulation bi ñaata nit ñoo dee diggante six kilo ak tey bés bu nekk affaire bi di continuer et pourtant ñoom ñoo defoon fi moom ci boppam jël oto dem ba côté Kaffrine. Hmm. ñuy jooy jooy desewu leen dara lu dul léegi créer ay enveloppe di naan ku dee. ministre bi ak ministre yi ànd leen ngeen dem jaale ji ngeen joxe enveloppe ñoom foofu ñu des parce que pour ñoom gëmuñu seen bopp dañu xalaat nii lépp lu ñu dal ci yàlla la jógee nañu bay di tooñ yàlla toujours de yàlla moo ñu créer mënul soxor mënul soxore ñu mu créé donc suñu faute bopp moo indi yeneen jéew mais malheureusement lu togg wax fatalité culture fatalité moom la ñu développé léegi léegi boo dee du ñu ne suba lii tax nga dee mën nañu def tout pour bañ a am. Mm-hmm. dañu naan simple ñu ngi dem di jaar te jaal boobu sax gëmuñu ko parce que ñoom dañu koy politiquer maanaam yow yaa ngi torox ñoom ñu exploité sa toroxal bi pour mun laa ci séduire wala jéem la ré récupérer parce que la la dañuy ñëw ak télé filmer la yaa ngi jooy ñu wane ñoom ñu joxe xaalis. loolu sax c'est inacceptable. Mm-hmm. ngay exploité malheur nit ki. pour nga jaay sa bopp en terme de visibilité ñoom foofu la ñu toll ak nit ñi donc sénégalais yi ñoo war a xam ni fu mu ne nii amul kenn si ñun koo xam ne am nga protection lu ñu am yépp loo xam ne waroon na nekk affaire de sécurité et de prévention dañ ko jaglee kër góor gi fu Ousmane Sonko dëkk auto Ousmane Sonko ñi di ànd ak Sonko point li ci des yëpp ñoom seen yoon newu kon nit ñi itam amul lenn luñ mën a def ngir fagaru ci yenn danger yi fu mel ni tey université toujours am njort yu ci ñaaw ndax kanaalu Fass beeg ni mu màggetee ñu bari nekk ci kawam ak euh, fu mel ni Yaraax Caaroy sur Mer nga xam ne yenn saay essence beeg euh, nit ñi dañuy jaxasoo bu tawee itam ndox meeg essence bi euh, daal di mélangé wu loolu yëpp nekk ay danger nit ñi amuñu luñ ci mën a def lu dul xaar état. boobu yëpp. dafa am au niveau de la protection civile. Mm. ay dispositions réglementaires yoo xam ne ñoo fa nekk. Mm. boo jëlee par exemple les installations classées ñu ne installation classée numéro un bu amee fii kenn warul am beneen bâtiment à cinq cent mètres de ça mm. mais loolu amul fenn maa ngi dëkk Ziguinchor boo jëlee Sonacos nga xam ne installation classée numéro un. mi ngi dend ak kër yi. boo jëlee la SAR côté Diamaguène Sicap mi ngi dend ak ay kër. donc loi am na lu mu wax. jëfin bi am na lu muy def donc loolu moo indi hmm. ñuy naan mal gouvernance moo am hmm. mal mu am munoo am résultat hmm. surtout donc loolu moo indi ma ne la ñun suñu problème bi du Macky Sall léegi moo ko mën a régler pour ñu régler suñu problème nañu liggéey pour que Macky Sall jógee fii nañ ko dax comme ni ñuy daxee xaj pour que ñu mën a régler suñu problème mais tant que mi ngi nekk fii dinañu torox toujours parce que lu ñu waroon changer duñu ko mën a changer li nga xam ne yoon daf ko tere duñu ko mën a tere parce que moom gëmul yoon moom lu mu gëm mooy doole te moom amul doole ku amul doole très souvent moom mooy privilégié doole. Hmm. ñi yore doole ñoom dañuy garder sérénité. jërëjëf waxtu bee ñu dab euh, Abdou Sané fii la ñuy war a yem ci waxtaan wi di la gërëm bu baax a baax fàttali ni environnementaliste nga euh, waaye itam yaay coordonnateur PASTEF bu Ziguinchor ñu lay gërëm surtout ci disponibilité bi wax dëgg yàlla saa yañ la woowee doo ñu gàntu jërëjëf. ma